bés boobu noonu nag kii di nga xam ne moo di ak euh, lance corporal Mayada Sarr ak nga xam ne military police la moom dafa daal di demoon doxantu bu mu jullee lii di nga xam ne moo di naafila moom nag mu daal di dem taxaw si ñii di xaritami si jaoel bu nekk lamen si yoonu Brikama bi moom nag bu mu fa nekkee ñu ngi doon waxtaan rek mu daal di jénne lii di la mu wax leen ne lii nag moo nekk man suma àdduna kii di nga xam ne nag moo di si la kii di nga xam ne moo di Mayada Sarr wax loolu noonu kii di xaritam di eh, Ibrahima Badji ku nga xam ne mu ngi eighteen years eh, kooku nag si la daal di jël eh, lii di fetel bi si loxom mu daal di ko jubanti si kii di Modou Lamine Senghor moom nag bu mu ko jubante si kaw Modou Lamine Senghor mu daal di yuuxu jéméñam mel ni moom dafa daal di taal fetel bi waaye nag defut ko wax nañ ne nag si la daal di siga waati mu xëcca lii di nga xam ne nag moo di fetel bi si la mood Modou Lamine a wax nag kii di xaritam di Ousseynou Soxna mu ne ko nag ñu jóg ñu daw waaye nag kii di Lance Corporal moom nag wax na jamono boobu moom mu ngi doon waxtaan ak keneen moom sax yëgutoon lu doon xew ndiki yëpp fetelam bi yorewut ko woon bu njiit yi nga xam ne nag Senghor ak soxna buñ doon daal di daw ñu dem ak kii di Omar Suli moom moo mujjee jóg pour daw si la kii nii di Ibrahima Badji mu daal di jam fetel bi fetel bi nag dal kii di nga xam ne nag moo di Omar Suli sa loxom bi jamono bi nag kii di military police bi di Mayada nag ñu ngi ko teg loxo ah, si military ah, police ah, mu ngi leen a dimbale si lii di seen gestu bi kii nag di Ibrahima Habaji nga xam ne civilian la moom nag jamono bi mu ngi Banjulunding police station mu ngi leen a dimbale foofu noonu tamit si seen gestu